mais mënoo bind livre rouge yow yaa ko bind ba brandir ko ñëpp di ko gis mais démb ñu interviewé ko mu ne moom mënul lire couverture livre bi. dama ko tuutale. Hmm. Hmm. le petit visible lacré. mu ne ñoo mën a la la partie visible de de kër kër. de <laughs> kër de kër kër. Ah ah bu dee yaa ngi doog a seetaan suñu vidéo bul fàtte abonné liker.

mais sante yalla parce que man nit kessa la man musuma togn kenn te dama défendre rew mi man kuma gis xamni ni lu bax la bëgg ci rew mi askan motax ma jox man ma nek momelu Serigne Touba di défendre Touba mak Sall jëma toroxal ba lu lepp mu dal mako te yëmul ci man kessé ni ni lu ko def ñeneen ñenn ba ci Ousmane Sonko. tëj ko sa jaay ko doole tuumaal ko sàcc portable dem tuumaal yeneen ba Bassirou Diomaye Faye tëj ko si benn sànq boo xam matul deux mètres mais loolu nga jàpp ni ñun man de. Mhm. baaluma ko li nga xam moom la ma def te dinaa ko topp ba si biir bàmmeelam te à tout ma julli dinaa ko ñaan yàlla yàlla gën ko toroxal. jërëjëf waay sëñ bi. parce que loolu. jéggale ak jéllale man dama ko maa maama sama wàll jéggalu ma ko. amna taxaway bo xamné gis nañu bu bakkar Camara horizon sans frontière nee na namm na ko pour ñen ñi nga xamné dañ jàpp ne dañoo loru ci nguuru président Macky Sall est-ce que kon dañoo mëna xaarandi ko yow tamit au-delà sa contribution livre bi nga nek acteur bo xamné da fay ñew dugg wala participer ci ñu nga xamné dañ jàpp ne dañoo wara yonal ak président Macky Sall. waaw kenn ku nek ak mi nga xamante ne la sa dimension tollu ci tooñ gën la tooñ ak mi nga bëgg do xalé sa digënté mom mais man sama combat dama ko yenul sama bop man li ma def ak li mu def sénégalais dinaa ko yanu ñu ko war a yëg dañ ko yëg loolu mooy sama rôle. te dana continuer combat boobu noonu ba ñoom askan wi dootul leen xool wala ñu bañ leen joxaat dara parce que ñii jëruñu sax ñuy insister wala ñu leen di dénkaat dara. d'accord ci wàllum politique ñu génn loolu yëpp mais benn bokk yaakaar notamment le président Macky Sall dafa génne communiqué pour wax ba ne benn bokk yaakaar ñoo àndoon sekk nañ lii jëf nañ lii waaye mu ne jot nañu xalaat lu weesu. benn bokk yaakaar est ce que jàpp nga ni cette méthode politique mu fas yéene teg mën na joxaat doyo boo xam ne dina dem ba mu wala mu gën a am doole benn bokk yaakaar ba existe sama yoon nekku si wax bi mu wax sama yoon nekku si ñoom en tout cas lu man di tëgg Sénégal du tax ñu joxaa leen confiance parce que Macky Sall lu fi def ëllëg ak lu fa def yëpp mooy responsable bi sama yoon nekkul si ñoom d' accord <laughs> man te maa naaw benn yoon noppalu man eh. fu nu jëm ñoom ni mu bind livre blanc ma bind livre rouge livre rouge boobu noonu moo nekk nii mën nga ma ko naan parle lii mooy mhm. couverture livre rouge bi mhm. gis nga ni ma ko tutelee mhm. yow le petit visible l'agric mooy benn montagne boo xam ni mi ngi ci biir tout mooy feeñ Mhm. Mhm. La partie visible de l'iceberg. la partie visible l'iceberg. Mhm. l'iceberg montagne bu voilà euh, l'iceberg wala ñu wax euh, bateau Titanic. voilà <laughs> ma def scandale judiciaire Madame, la ko scandale financier. torture torture. assassiné.

bu nu joxee suñu alal jox suñu réew jox la suñu sécurité lu fa dal askan yow yaay responsable Macky Sall c'est un responsable li xew lépp ci fukki at ak ñaar après ma ne léegi Macky Sall à Macky Sall 2012 à 2024. Mhm. ci biir livre bi. Mhm. comme dañ koy publier après. dama si rek dañ koy publier Harmattan. c'est ci liggéey dama see génne ay quelques passes <laughs> yoo xam ne liir naa ko démb. bon bon, c'est bien le livre Je suis le magistrat, le président de la république Macky Sall à la tête d'un pays de de 12 ans. ah. Eh! mooy yéen. bu dee yaa ngi doog a seetaan suñu vidéo liker partager parce que ça nous aide vraiment.